2023 atu politique fii ci biir réew bu Sénégal lu nekk gis nañu ko dégg ko xaare ko waaye tamit am ay mbetteel ci lu jëm ci wàllu politique ci at gile ay xàjjaliko ànd bi ñu foogewul woon loolu yëpp mënoon nañ ko xaar bu ñu xoolee njeexintalu atum 2022 nga xamante ne lu bari xew na ci bokk ci assemblée nationale bi ñuy daal di toogal maanaam quatorzième législature dellu si bi ñu dellu si waat poste premier ministre gannaaw bi ñu ko dindee woon ci atum 2019 te tabb ci Amadou Ba muy ilimaanu jawrin bi teg gouvernement bu yees assemblée nationale woote ab motion de censure ngir digal boobu lépp gouvernement te mu mujjee lajj moom amadu Ba mu ñëw def déclaration de politique généralam teg ko ne gouvernement de combat la mbiru Ami Ndiaye ñibbi bi xew foofe ca assemblée ba lépp yegg si ci atum 2023 ak yeneen mbir lu ci mel ni Aminata Touré moom mi nga xamante ne ci Benno Bokk Yaakaar la bokkoon nekkoon sax seen njiit ci lu jëm ci élection législative yi mujj génn ca assemblée nationale maanaam dàq ko ci poste bi nga xamante ne moom mooy poste député bi mu amoon. loole lañuy wax destitution de son post mbir boobu nag jur coow bu bëri ndax boo ko xoolee assemblée nationale boobee fukki ay membre yu bureau ba ñoom ñoo woote ngir ñu génnee Mimi Touré ci boobu le poste ci ñoom député yu Parti démocratique sénégalais bokk ci coalition wàllu Sénégal amoon juróom benn yoo xamante ne ànduñu ci woon Mimi Touré jàpp ne loolee du yoon dañoo daal di salfaañe àq ak yelleefam ndax du ñoom ñoo ko fa teg waaye askanu Sénégal naam moo nekkoon njiitalu coalition bi seen liste bi ci élection législative yi du ko nangu fas yéene xeex mbir mi yóbbu ko fa mbaxana doone benn coow li nag bëri woon na ci biir réew bu Sénégal waaye mujjul fenn ci njeexintal ba Aminata Touré nekkatul député dematul ca assemblée nationale noonee lay daal di xamle ni sax moom bokk na ci ñi nar a samp seen dënd jongante njiitu réew atum 2024 bokk ci la muy gën a xeex wala xeexam sax doon ne Macky Sall du def ñetteelu mandat fii ci biir réew bu Sénégal jaral ko lépp nag. février 2024 ci lay pare ndax constitution nee na nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs 2016 ñun ñëpp ànd fii ñiit fi toog ñëpp ñoo àndoon ne constitution 2016 bi dañu ko verrouiller que nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. ba moom Mimi ture moomee daal di dem mujj ci ku jégg noonu lañ ko daal di yëkkati benn dossier muy IGE ne ko am na koppar boo xamante ne war na ko leeral ci ba mu nekkoon njiitalu conseil économique social et environnemental moom Mimi Touré xamle ne ci njiit yi nga xamante ni conseil bi moom la mës a am yëpp moom moo ci gën set loxo bu ñu weddoo loolu nañu ñëw woote ñu leeral IGE boobee ñu wax sax Ousmane Sonko am na ci wàll ndax tooy na si bu ñu sukkandikoo ci génn ba nga xamante ne moom Ousmane Sonko boobee moo ko génnoon ci atum 2022 ci novembre ba xamle woon ne maam mbay Niang nekk jawriñ bi yor wàllum tourisme ci biir réew bu Sénégal IGE boobee amoon na mbir boo xamante ne gis na ko ci na mu yore woon mbirum Prodac ñu ay koppar maam Mbaye Niang noonee la koy daal di porter plainte yóbbu ko ci kanamu yoon ngir mu ñëw leeral setal deram procès bi ñu woo ko tàmbali nag Ousmane Sonko di def ay dem dikk ci li nga xamante ne moom mooy diggante këram ak tribunal benn bés moom Ousmane Sonko ci ba tey ci mbirum maam mbay Niang muy dem ca tribunal wala sax muy ñibbisi ñu taxawal otoom wàccee ko ci par force daal di koy dugal seen oto yóbbu ko ba ci këram moom Ousmane Sonko ana paie de bisu waaw da nga koy sëli Je suis en état d'arrestation. Non, non, non. Non. mbir moomee juróon fi coow lu bëri gannaaw loolee ba tey ci mbirum Mame Mbaye Niang loolee nekk xeex boo xamante ne war nañ ko xeex laataa ñuy dem jongante njiitu réew atum 2024. ca wet ba mbirum Adji Sarr moom ci atum 2021 ba tey jógagul 2023 bi sax lañu fas yeneen dégg lu leer. muy ñaari dossier yoo xamante ne am na beneen mbirit loo xamante ne ñuul na ci soow li muy jamono ji ndax Ousmane Sonko bu ñu wàccee ñaari dossiers yi daan ko est-ce que dina mën a doon candidat boo xamante ne dafay daagaani kàddu askan wi atum 2024 am déet coow li bëri waaye Ousmane Sonko moom gëm na lenn te am na yàqin ne moom mooy doon njiitu réew atum 2024 ndax jàpp na ne kenn mënu ko tere mu doon candidat du Macky sàll du justice du keneen ñi ànd ak ñoom jàpp ne benn plan cote lañu am A B ba Z benn la muy Ousmane Sonko. Pastef les patriotes a un candidat en 2024 il s'appelle Ousmane Sonko. moom Ousmane Sonko mu tàmbali nag wone boppam dem ca Kër Massar def fa mitin bu rëy. ma bëgg leen wax ni man mi mii Ousmane Sonko démb laa jóge Ziguinchor bi ma demee dem naa ca sëg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 bu leen ko déggee nee na ni déglu leen ma rek dinañ comprendre ante loolu tekkiwul ni damaa dem jox sam bopp Macky Sall xam ngeen lu muy tekki mooy Macky dina jël suñu bakkan wala ñu jël bakkanam su dee dafa bëgg a waaye lii ñu fenk génne ko ñun wàccoo nañ ci ak senegal moo tax ma ne man egg naa sama terminus ci seen dossier tappale bi. egg naa sama terminus de est-ce que pare ngeen Macky Sall laay waxal daañu xeex ak moom bu dee gendarmerie ak police rek la yaakaar na préparé xam ni dina rey Sénégal yépp waaye daañu xeex ak moom te nag bu leen ci déglu kenn ku leen naan da ngeen violent wala da ngeen bëgg fitna parce que fitna bi kenn ko yor Sénégal mi ngi mooy Macky sal gàtt sa gàtt sa rek léegi Gatsa Gatsa. Gatsa sa rek. ñu coow ko mu ñëw parcelle ànd ci ak waa coalition yi Askan Wi ñoom tamit ñu boole seen doole xeex. bokk na ci la nga xamante moom moo leen gën a tax a jóg muy Macky Sall du fi defee ñetteelu mandat. daanaka tënk na wax ji nekkatuñu ci jamono ay discours yu gudd jaru ko lenn rek laa leen di laaj li ma leen laaj mooy ndax pare ngeen pour xeex.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 amatul luñ fiy dissertation ci Macky Sall Macky Sall respecté wul sénégalais faalewul sénégalais Macky Sall du góor Macky Sall du naxante moo ko fi jëlee amul kenn senegal du kilifa diine du mouvement citoyen du parti politique du mag du ndaw amul kenn ku Macky Sall respecté faalewul kenn. bëgg-bëggam moom ak soxnaam ak i doomam ak i ñi ànd ak moom loolu rek la xam jàpp ne ni keneen ku dul kooku ku mu mun a tër la rendi la fees la jaay yàpp ba wala mu séddoo ko moom njabootam toog jàpp jàmburam moo tax ku mel noonu yàgg naa leen ko wax rapport de force la Macky Sall xam bu ñu xeexul ak Macky Sall ñun ñii ñëpp dina jaar suñu kaw mbokk on s'est beaucoup battu pour un projet te projet boobu mooy sauver le Sénégal ay at juróom-ñeenti at ñuy xeex joxuñu nit xaalis sàcc ñu xaalisu réew mi joxe ko digguñu nit ñi lu amut waaye dañoo bokk ak yéen ay xalaat ci li war a defar réew mi jële fi ngër ak sàcc xaalis jële fi nooteel gi nga xam ne noot nañ ko Sénégal dog jag mbuumu jaam gi delloo si alal réew mi ci réew mi séddale ko ci séddale séddale bu maandu lii lenn la ci suñu projet bi ñu boole ñun ñëpp ñu koy xeex biñ koy door matuñu woon fukki nit di waxtaan ak Sénégalais yi ngeen koy gëm ba tey mu yegg fii nga xam ne ñun ñëpp xam nañ ne bu ñu demee 2024 gannaaw yàlla kenn mënuñu tere jël réew mi. Macky Sall Macky Sall ak quelques magistrats ne ñoom ñoo am fitu ne li askanu li ëpp li ëpp ci askanu Sénégal la ñu bëgg ñoom dinañ ko tere. moo tax ma ne leen Macky fi mu toll nii ci ñett la yaakaar. mi ngi yaakaar ci ay ministre jël na ay nit ñun xam nañu ñan ñooy recruter ministre xam nañ fi ñu dëkk yor nañu seeni information yéen jeunes yi laay wax bis bu ministre génnee song fi ay nit fu ñu munti nekk fekk leen foofu ba ci seen biir kër fekk leen foofu te li gën a yéeme les forces de défense et de sécurité xam nañ milice yi de am na milice yoo xam ne ñu ngi ci biir police bi te kenn du leen jàpp ñun bi ñuy wax gatsa gatsa police ak gendarmerie taxul ñu wax ko de waa APR laay wax si vous avez quelque chose entre les jambes bàyyi leen police fële ngeen bàyyi gendarmerie fële ngeen génn jàkkaarloo ak APR laa wax de ñun xeexuñu ñun yoruñu armée yoruñu ay ngàndaay songantewuñu ak police ak gendarmerie lu dul ñu war a def suñu manifestation police ne du fi amee ñu ne ñu def li ñu war a def mais su weesoo loolu ñun bi ñuy wax gatsa gatsa xam nga ñan la ñuy wax c'est poltron de l'APR sàcc xaalisu réew dem di fay ay milices foog ni loolu mun na leen yàlla xam ne ni bu police jóge woon fii gendarmerie jóge fi ñoom ñëpp ñu génn réew mi dama ne réew dafay torlu à des moments historiques historique boobu la ñu toll dafa am moment yoo xam ne le peuple doit prendre son destin en main yeneen réew yi ko def gënuñu ñu wallahi yéen laa koy wax la jeunesse ñu soppi réew mi. waaye am mbir boo xamante ni bëgg nañ ci daal di attirer seen attention Mimi Touré ci kanamu Ousmane Sonko ba sax ñuy lënkoo loolu jar naa taxaw am na lu xew ci diggante bi ndax ma wax leen fàttali leen ne Mimi Touré mii ci atum 2022 moom moo doon wax Ousmane Sonko lii. concernant le euh, dossier d'une certaine dame qui s'appelle Adji À cette occasion, je voudrais dire euh, que ce n'est pas Benno Bokoyakar qui tient le carnet de rendez-vous de Suite Beauty Salon. Ce n'est pas nous qui donnons les rendez-vous. Ce pas nous. Donc nous n'avons absolument rien à voir avec une affaire qui est strictement privée. Il ne faut pas aussi prendre les Sénégalais pour moins intelligents qu'ils ne sont. Les gens se lèvent, prennent leur rendez-vous dans des salons et ils vont librement. Nous n'avons rien à voir avec là trouve. C'est pas nous qui donnons les rendez-vous là c'est pas Benno. tey ñoom ñoo doon ay doomu ndey politiku Sénégal ennemi yu démb ñoo mujjee doon xarit ak àndandoowu tey waaye baax na noonee lañuy ñuy daal di gis nag njiitu réew bu Sénégal Macky Sall woote li ñu duppee dialogue politique dialogue politique boobee dinañ ci ñëw Macky dal di wàcce li nga xamante ne moom mooy benn décret jaarale ko ci jawrin bi yor wàllum biir réew di Antoine Abdoulaye Félix Diome jamono jooju moo ko yoroon ni nañu dem ibbi liste électorale loolu la ñuy wax révision exceptionnelle des listes électorales bu ko defee ku bëgg a bindu ci liste électorale yi di nga mën a bindu naka noonu tamit ku bëgg a soppi bureau de vote nga mën koo def muy mbir bu am solo waaye ku jëga tamit yuuxooti nañ ndax nee nañu waxtu bi ñu ko def dafa gàtt def nañ ko giiru benn weer jàppee juróom benn fan ci weeru avril jëmale ko juróom benn fan ci weeru mai te sax li ci gën a doy waar mooy ñaari fan ci weeru mai lañ koy yemale li des teytu lay doon waaye teewul nit ñi dem nañu bindu ji Ousmane Sonko politique yi ñoom ñëpp daal di woo askan wi ñu dem defi li ni mel Ousmane Sonko moom jàpp ne xeex bi fii lay commencé. te xeex bi nag ay niveau la ay degré la mooy dem leen bindu ji ci liste électorale yi parce que tappale yi muy def yëpp pour bañ ndaw ñi dem bindu ci liste la nee na un mois la koy def waaye boo calculer ba ci biir matul sax 24 jours ndax boo génnee dimanche yi génne fête yi matul sax 24 jours moo tax bu leen toog ba dernier moment ngeen di jóg bu ñu nee ubbi nañ ko suba dama bëgg fépp fu ñuy bindoo mu ñuul kukk ak nit loolu benn pàcc la laataa ñuy ñëw ci dialogue politique bi waaye yéen jaaxle leen ñu nekk ci veille élection maanaam jogante njiitu réew ñi ci samp seen dënd day daanaka mat nañ sax 2023. ku nekk samp na ndëndam ci jogante njiitu réew bi li koy firndeel mooy bi ñu demee ba retrait fiche de parrainage bi daanaka ñi jël seen fiche de parrainage. mat nañu deux cent cinquante maanaam ñaari téeméer ak juróom fukk ak lu toftal waaye li ci gën a ëlëm xelu askan wi mooy te sax bàyyi woo leen ci xel mooy jamono jooju déclaration bu njiitu réew bu Sénégal Macky Sall ñu ngi koy xaar ndax dina bokk ci jongante njiitu réew atum 2024 am déet ndax moom mooy doon candidat bu coalition Benno Bokk Yaakaar am déet wala dañuy am beneen candidat wala yeneen i candidat loolu yëpp dara leeragu ci ñu dox ba tey dialogue politique bi ñu dellu siwaat ci dialogue bi maa ngi gërëm ñi nga xam ne gëm nañu les vertus du dialogue te ñu leen décevoir parce que man au la de dialogue au-delà de ay manda nee naa leen poser leen mandat poser leen débat waaye li nga xam ne mënuma koo bàyyi mooy kuy jéem a faafaaga réew mi wala di ko jéem a yàq wala jàpp ne mën nañ fi installer kaw mandat boo leen bëggee da koy ñaan ma leen jël leen soo leen bëggee waaye si njekk nag si njëkk de waaye par force doo nekk doo ñu teg ko ci leen ci seen bëgg-bëgg mais au nom de kon débat boobu duma ma ci dugg parce que débat dialogue bi la man nangu naa ñu débattre ko dans le dialogue man ma jette nullement comme nangu naa ñu débattre l'ouverture et l'inclusion parce que c'est pour le Sénégal c'est pour l'avenir de ce pays donc loolu bu ko gëmee nañu dem ci dialogue bi dans cet esprit pour faire avancer encore notre démocratie nag ne me demandez pas de croiser les bras face aux velléités de déstabilisation de notre pays personne ne demande cela ñu toog waxtaan li nga xam moom mooy réew mi pencoo ko loolee nag mujjee jur coow féewaloo ci coalition Yewwi Askan Wi ndax Khalifa Abacar Sall dafa jóg ne dafay dem wuyu ji woote boobee Yewwi Askan Wi ne ko yónneewuñu la te bu ñu fa teewal ndax ñun Yewwi Askan Wi dem wuñu wuyu ji Macky Sall waxtaanuñu ak moom noonee la ñuy daal di def dialogue du peuple bu F24. waaye lan mooy F24 F24 plateforme bu yees la boo xam ne ay woy politique yoo xamante ne ci ko gi la bokk société civile ak ñeneen ñoo ci daal di bokk la ñu bëgg bokk na ci li gën a fës ci seen xeex mooy Macky Sall du fi amee troisième mandat. ku nekk def dialogue mu indi woon nag coow bu metti ñaari mu mujjee am dialogue politique bu Macky Sall foofu ca pale présidentiel ak dialogue bu askan wi bi nga xamante ne F24 mii ñoo ko teg coow mu jee am réero xàjjaloo ci weeru juin la ñuy dugg ñaari fukki fan ak ñaar rapport synthèse bu rapport bi nga xam moom moo génn ci dialogue boobee daal di fës ñoo am nag ay recommandations yoo xamante ni teg nañu ko am poñ yoo xamante ne ànd nañu ci am yeneen yoo xamante ni ànduñu ci. teew ci dialogue politique bi nga xamante ni njiitu réew bu Sénégal Macky Sall moo ko woote tànn nañu fukk ak ñaari ay poñ yoo xam ne d'accord nañu si maanaam àndu nañu si ñeent ñoo xamante ne waroon nañu ci xalaat ci benn bataaxal bu ñuy daal di fësal li ni mel def nañu ci tënk poñ yi nga xamante ne ànd nañu si benn bi ci njëkk di lu jëm ci parrainage citoyen bi. ñu xam le ni fi na ne nii daañu amal parrainage ci élection yi ñu dégmal ngir xool fichier général bu électeurs yi pourcentage bi jëlee nañ ko 0,6 yóbbu ko 0,8 pour cent lu mooy boobee parrainage am na tamit parrainage bu élu yi maanaam boobee ponk dañu daal di jàpp ne ku am parrain 8 pour cent ci député yi maanaam fukk ak ñett ay député ci assemblée nationale daanaka seen biir mat na vingt pour cent ci euh, lu jëm ci wàllum exécutif territoriaux yi maanaam téeméer ak ñaar fukki ay maire wala ay président conseil départementaux caution bi ñu war a joxe ngir bokk ci jongante njiitu réew tamit euh, tëral nañu ko warul weesu fanweeri million ci suñu ay koppar lu jëm ci droit civique ak politique kan moo war a doon candidat am déet naka la ñu war def ba boobu lépp mbir ñu daal di koy taxawal waxtaan nañu ci ak coppite bi ñu bëgg a indi ci article L28 bu code électoral ñeel candidature yooyee ba tey waxtaan nañu ci ndax dina bokk am déet ñetteelu candidature wala déet ñoom ñu jàpp ni conseil constitutionnel moo war a leeral bi mbir ngir ñu tënku ci loi ak règlement yu constitution coppite article bu code électoral waaye tamit bulletin unique ci élection présidentielle bi ñu dëgmal jongante présidentielle atum 2024 tamit CNRA ak Sénat war nañ ci am ab pàcc bu am solo ci nag ñu ko war a contrôler ci biir réew bu Sénégal lu jëm ci audit fichier électoral bi tamit cambar nañu ko ànd nañu tamit ci xoolaat lii di CREI maanaam Cour de répression de l'enrichissement illicite ki war a doon chef de l'opposition ñu jàpp ne mooy kii jël ñaareelu place ci jongante njiitu réew yi ñu mujjee amal daañu samp ab comité de suivi ngir lii la yëpp ñu daal di koy saytu xool ko bu baax a baax ñeent poñ yoo xam ni ànduñu ci muy organe bi war a saytu élection ci réewu Sénégal wala li nga xamante moom mooy cumul de fonction njiitu réew bi ndax war naa doon chef bu parti politique naka la ñu war a def ba daal di bàyyi ñi ñu woowee ay détenus politique wala échéance politique bi ñu dëgmal nan lañ ko war a def waaye jàppale ne ba tey ci bataaxal bile am na ay ponk yoo xamante ne daañ ci gën a waxtaan lii moo génn ci dialogue politique bi xaarandi ñaar fukki fa ak ñeent maanaam gaaw bi ñu dëgmal bés bi nga xamante ne daañu jébal dossier bi njiitu réew bu Sénégal Macky Sall. Khalifa Sall ak Karim Wade bu ñu sukkandikoo ci li nga xamante moom moo génn ci dialogue bi te ñu yóbbu ko ca pencum ndaw réew ma mën nañu bokk ci jongante njiitu réew atum 2024. loolee daal di ibbi li nga xamante moom mooy langue bi présidentielle bi gën a am nag ay candidats yu crédible ndax ñoom ñaar dañ leen génnee woon ci jongante njiitu réew atum 2019 bokkuñu woon waaye ba léegi xamaguñu Macky Sall ndax dina bokk am déet waxagu ci de nee na nañu xaar ba tabaski jàll. la question des mandats deux mandats je vais le débat <laughs> deux mandats consécutifs ci des yàggatul mën nañ ko xaar ñu tabaskee ba pare rek ñu song comme ça au moins que les gens aient le temps de bien manger leur viande de tabaski et voilà mu joxe dig daje war a def adresse à la nation maanaam discours à la nation ñetti fan ci weeru sulet ñëpp di xaar li mel ndax dina bokk am déet waaye loolu laataa yu ci ñëw ci discours bi nga xamante ne Macky Sall wax na ko delluwaat tuuti ci weeru juin Ousmane Sonko la ñu woo yoon acting digganteem ak Adji Sarr daan ko corruption à la jeunesse avocat yu Ousmane Sonko d'accord ñu jàpp na ñoom am na ñu ndam waaye état bu Sénégal moom lenn rek moo ko tax a jóg mooy bu Ousmane Sonko bokk foofu la coow mi commencé ana lan moo waral contumace boobee li ko waral mooy Ousmane Sonko dañu ko suuse suuse ko mu waroon teew te ñëwul fekkee li nga xam moom mooy atte boobee waaye ndax contumace boobu dina tax ba Ousmane Sonko dootul bokk boroom xam-xam yi daal di féewaloo ñi ne déet ñële ne waaw coow boobu nag ci kanam daañu ko fekkiwaat yegsi nañu nag ñetti fan ci weeru sulet Macky Sall taxaw jàkkaarloo ak askanu Sénégal wax leen dëgg. mes chers compatriotes. S'agissant de l'élection présidentielle du 25 février 2024, je tiens à ce gouvernement prenne toutes les dispositions pour une bonne organisation du scrutin, comme par le Ma décision, longuement et mûrement réfléchie, est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. du bokk te bii mooy ñaareel ak mujjanteelu mandaawam loolu di mbetteel daanaka ci ñëpp muy woy kujje gi waaye tamit ña nga xamante ne sax ñoom ñoo bokkoon ak moom mooy camp présidentiel bi ndax xëy na xaaruñu ko woon ñëpp daal di tàccu boobu lépp décision ndax jàpp ni loole mooy indi dal coow li commencé nag Macky du bokk Sonko day bokk loole la ñu doon wax tey jii Macky leeral na ju bokk waaye ndax Sonko dina bokk Ousmane Sonko jóge na foofii ca Sikicoor nar def li ñuy woowee caravane de la liberté ba mu jógee ca Sikicoor ngir wutali fii ci Ndakaaru mujjul yegsi foofee lañ koy daal di jëlee yóbbu ko fi nga xamante moom mooy ca cité kër góor gi def ko li ñuy woowee résidence surveillée tëj ko. Vous avez entendu euh, tous euh, il y a quelques jours le leader du PASTEF à partir de Ziguinchor déclarer qu'il va faire une caravane euh, au cours de laquelle des rassemblements seraient organisés. Nous avons vu que dans le cadre la première étape il y a eu mort d'homme. Et on a pu, de ce fait, encadrer le leader du PASTEF jusqu'à son domicile où il a été déposé. loolu mu ngi xew daanaka ci njeexitalu sulet bi bi ñu tàmbalee weeru août moom Ousmane Sonko ñu teg ko loxo procureur bi lii la wax. il sera poursuivi pour appel à l'insurrection association de malfaiteurs atteinte à la sûreté de l'État complot contre l'autorité de l'État, acte et manœuvre à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, mais également de vol. Ce qu'il faut admettre et reconnaître également, c'est que le Ousmane Sonko a lui-même reconnu avoir arraché violemment le téléphone portable d'une dame gendarme. Et ces faits sont qualifiés juridiquement de vol. En réalité, c'est l'élément déclencheur de son arrestation. ndax lii yëpp bu tegoo ci kaw ndodd Ousmane Sonko dina mën a bokk laaj bi ñëwaat na ba léegi amagul tontu. fiche de parrainage yi ñëpp jëli nañu mandataire ba Ousmane Sonko di Ayib Daffé dox dem comme ñëpp candidat yi dem jëli fiche de parrainage am ñu ne ko sa candidat mënul am fiche de parrainage. direction générale des élections génne bataaxal xam le ni Ousmane Sonko dañ ko dàq ci liste électorale yi moo tax. nekkul électeur kon mënul bokk ci ñuy dagani kàddu askan wi mënul woote te ku mënul ta woote mënoo laaj baatu askan wi loolee nekk benn mbir coow la nag tàmbale lu am na yeneen mbir yu xew ndax Ayib Daffé jóg na fi sax ba dem ca sena Sénat dem wax ni na kii di euh, direction générale des élections jox Ousmane Sonko ay fiche de parrainage am Macky Sall diigal sena boobu indi beneen équipe bu yees loolu indi coow Macky Sall du candidat waaye xamaguñu kat mooy doon candidat bu coalition Benno Bokk Yaakaar juróom-ñeent fan ci weeru ñu def ndajeek taskatu xibaar yi xam le ne Amadou Ba mooy seen candidat ci ñim nga xamante ne am ñu mbëbët ngir doon candidat boot coalition Benno Bokk Yaakaar. Nous avons retenu monsieur Amadou Ba actuel premier ministre comme candidat de Benno Bokk Yaakaar et de la grande majorité présidentielle. pour l'élection présidentielle de février 2024 li ñu fi defar monsieur le président ak li nga fi liggéey ak figat ak ñaar yi loolu yëpp dañ ko war a aar war ko protéger te yokk ko mën na am yaatal ko mën na am dëgëral ko mën na am ñu def ko ak candidat Amadou Ba. Aly Ngouille Ndiaye ci saa si lay daal di démissionné tekki ndombal tànkam moom mi yoroon wàllu mbay mi ci biir réew bu Sénégal ne dafa am ba bët yor réew mi samp ndëndam Mame Boye Diao naka noonu tamit samp ndëndam génn ci coalition Benno Bokk Yaakaar ab Abdallah Dionne féewaloo ak xaajaloo commencé am ci biir coalition bi waaye du boobule coalition kese ndax même coalition Yewwi Askan Wi ñoom tamit réeroo am na seen biir dàq Khalifa Sall la ñu def génnee ci li nga xamante moom mooy seen groupe WhatsApp. ne moom bokkatul ci li nga xam ne moom mooy boobu lépp ndaje ndax bàkkaar ba mu def dem wuyu ji Macky Sall ci jalug politikam am. Sall xam le ni dina teg gouvernement bu yees ñu koy xarandi tey nag bés bi yegsi na xel yépp ak gët ñu ngi koy teg ca pale présidentiel ba gouvernement bi daal di génn. moom Amadou Ba xam ngeen ne moom la ñu tabb ilimaanu jawriñ Macky Sall dindiwu ko ci gouvernement bi naam bari na woon ak coow ndax nee nañu moom mënul noon Euh, ilimaanu jëwrin bi bëgg a wu ci li nga xamante moom moo jëm ca la ñu duppee action gouvernementale bi naka noonu tamit bëgg doon candidat bu coalition Benno Bokk Yaakaar waaye gouvernement bi génn ñu gis ay nit ñu bees dugg ci gouvernement bi am ñoo xamante ne bougé wuñu am ñoo xamante ni kër gi la ñu jóge dugg ci kër gële loolee la ñu duppee woon changement de chaise musicale Amadou Ba teg li nga xamante ne moom mooy engagement ak objectif bi le gouvernement amuñu plan B ñoom benn plan cote mooy seen plan muy Ousmane Sonko waaye jamono ji ci li fi jot a xew doxalin bi soppeeku na dem nañu foofee ca direction générale des élections gannaaw bi ñu lànkale Ousmane Sonko mu jël ay fiche de parrainage am juróomi candidat daanaka yu bokk ci Pastef ba woon jël nañu seen fiche de parrainage lu tax ñu ne Pastef ba woon ndax parti bi dañu ko diigal gannaaw ba ñu daanee Ousmane Sonko loola ci décret ministériel la xew muy mbir boo xamante ne gëj naa xew ci réewu Sénégal daanaka ñu ngi woon ci atum 1968 Abbas Fall Guy Marius Sagna El Malick Ndiaye Bassirou Diomaye fay ak biram Souleye Diop ñoom ñëpp dem jëli seen fiche de parrainage stratégie la boo xam ne parti bi teg nañu ko. ba tey amaguñu plan B. waaye ba tey ci seen stratégie kii di Bassirou Ousmane sonk joxe na ndigal ngir ñu dem wutali Bassirou Diomaye Faye ay parrain Bassirou Diomaye Faye boobu sax mu ngi ci loxo yi yoon ndax ñu fàttali tegoon nañu ko loxo gannaaw ba nga xamante ne bindoon na ab post ci page Facebook am maanaam xarala yu yees yi daanoon ci ngañ ñi nga xamante ni ñoom ñooy magistrat yi ak seen doxalin duppee woon ko la clochardisation continue ñu tàmbale ko wutal ay parrain boobu benn étape la beneen étape bi mooy dem ca caisse de dépôt et de consignation joxel ko caution loolu yëpp Ousmane Sonko amagu ko. caution bi dem nañu tàmbali teg Karim Meïssa Wade moom moo ibbi mbir mi dem ca question de dépôt et de consignation teg fa caution am yeneen i candidat ku nekk ñëw na teg na caution tey ji nag tàmbali nañu li nga xamante ne moom mooy dépôt de dossier de candidature yi bu ko defee ñu xool fi lekk ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru décembre bi kan kan ñooy indi seeni document li des nag nar a dese ci loxo conseil constitutionnel ndax ñoom ñooy tànn wax kan kan ñoo am maqaama am sañ-sañ ngir mën a bokk jongante njiitu réew atum 2024 doon ay candidat dëggantaan wàllu élection présidentielle 2024 bi am na fi naka noonu tamit ndax dina nekk élection yoo xamante ne dafay daal di dal xel maanaam élection démocratique libre et transparente Macky Sall moom fu mu dem ci àdduna ci biir réew bu Sénégal fu mu yëkkati ay kàddu daal di jël engagement bi xam le ni kon ni mu jëlee Sénégal noonu la koy bàyyiwee dina def kem kattan ba jongante njiitu réew yi ami ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février atum 2024 ci jàmm ñëpp dem ca mbañ gàcce ya tànn ka nga xamante ni moom la ñu wóolu dénk ko réew mi ñaari fan ci weeru avril mu jox ko li nga xam moom mooy lenge yi dem toog ci yaakaar ne réew bu Sénégal dina nekk ci jàmm atum 2023 bi saf na saf ci politique atum 2024 ndorteel bi tamit